amis auditeurs de la rajo Rewmi FM merci beaucoup samedi ñëwaat nañu ci ñi nga xamante noonu nañu mëne dalal fi naan kon samedi bu jot ni ñu koy defee dalal fi kon comme je l'ai dit une star euh, koo xamante ni mu ngi ci showbiz bi tey nag ñu ngi fii ci Sacré-Cœur seet si Tata aja Ngoné Ndour moom la ñu seet si nekk nga xamante ni rakk la ci euh, la star planétaire mais fi ñu ko gën a xamee mooy ci li yëngu nekk seen patigal le nekk ci koo xamante ni ràññeeku na waaye it nekk na léegi ki nga xamante ni moo jiite nekk PCA bu SODAV tey moom la ñu am mbégte kon seet nga xamante ni mooy bërëbu liggéeyukaayam te daañu soobu ci waxtaan bi salaamaaleykum. maaleykum salaam maa ngi kontaan recevoir waa Rewmi FM fii. Mhm. Ah, donc mu ngeen di def liggéey bu am solo. ak waa Rewmi TV la télé du peuple. waaw moom laa bëgg groupe bi. Mhm. groupe bi ngeen di ngeen di def liggéey bu am solo. aussi mhm. nag li ci gën li ma ci gën a neex moom mooy que ni sama sama càmmiñ jiite jiite loolu yëpp. donc mm-hmm. dafay neex rek tey. <laughs> voilà c'est ça ñu nuyu de passage nga xamante ni mooy suñu caméraman ak tamit le confrères du quotidien réew mi ñoom euh, comme je l'ai dit temps yëpp ni ma koy waxee dañoo soobu ci euh, yokku cere doolu ñeex tax nag tey jii ñu seet si la tata euh, di la njëkkalaa ci li nga xamante ni mooy accoutrement bi parce que ijaab nag dafa xew ko qu'on puisse dire léegi jigéen ñi soobu nañ ci yow sa bos tendance la wala loo xamante ni da nga jékki-jékki rek soobu ci qu'est-ce qui vous a motivé donc à porter le le hijab. donc kontaan naa trop ci mu nekk mu nekk question bu njëkk boo ma posé <laughs> voilà donc donc euh, man moom du kii quoi. du mm-hmm. du mode si man ah. du mode mm-hmm. si man parce que man kii ma connaît man je ne suis pas la mode je voilà me suis moi. <laughs> Mm-hmm. du ma du ma suivre mode donc euh, man au fait. Euh, li tax may muuru. Hmm. Euh, dafa jóge fu sori. ndaxte ñëpp xam nañ ni que ne dama ñàkk sama borom kër. Hmm. Euh, léegi mu mat sax juróomi at ut bii lay mat juróomi at. donc euh, bi may tënj man dama nekkoon depuis bi ma nekkee xale dama mës a nekk nit boo xam ne ni que dama bëgg affaire u diine. dama dama bëggoon affaire dama bëgg affaire diine affaire julli ay affaire yi dafa mës nekk ci man. Hmm. bi yàlla defee li ko soob ñu nangu ko Euh, ma ma ma ma wéet ci loolu parce que booy tënd da ngay da ngay wéet. ci sa bopp. Hmm? parce que xam nga des fois liggéey yi dina la jàpp ba nga xam ne ni que ni euh, des fois euh, doo am sax temps wu toog pour wéet ci sa bopp. Hmm. moment boobu mu nekk moment boo xam ne ni que ni dama wéetal sam bu sam si sam bopp toog et j'ai j'ai j'ai lu le Coran. le Coran et rendu compte que Dieu nous a jigéen ñi dañuy muuru. d'ailleurs d'abord c'est venu de ça mm-hmm. et que euh, mu ma gis ma mu rafet loolu mu yiw loolu euh, naam bi ma koy bëgg def sax ba ba bi ma paree noonu te tënj ba nekk ne damay commencer muur peut-être am na sax <laughs> quelques membres de ma famille da ngay muur est-ce que nga ko continuer ay affaires yooyu est-ce que lii lii ak lii am na sax même certains ñu ma ci doon bëgg a dindi ah mais mois mm-hmm. euh, man je fonctionne avec la conviction. donc euh, depuis lors mu nekk loo xam ne ni que ne dafa sedd sama xol muur bii ma jël kaala gi ma jël teg ko si sama bopp dafa dafa nekk loo xam ne ni que ne dafa dafa sedd sama xol parce que man euh, pour man. mais est-ce que transition bi c'était parce que jóge ci benn peut-être le mode boo dem ci beneen que comment vous l'avez vécu. non dina yomb parce que bu ci xel la. Mm-hmm. parce que xam nga booy def dara nga gëm ko. doo doo sentir ne que ne da da di nga di nga jigi damaa fàtte sax li ma li ma daan sol bu njëkk ba avant ma doon muuru dama ko fàtte peut-être que surtout les photos yi nga xam ne ni que ne moom laa daan def avant euh, dinaa ko ci gis nii mhm. mais euh, dama naan sama bopp que ne euh, bu ma doon bu ma sañoon damay li naan anglais di naan rewind damay delluwaat gannaaw def def teel ko def mm-hmm. donc dafa nekk loo xam ne ni que ni dafa dugg sa man affaire kii moom euh, boobu moom boolewu ko dara affaire diine moom ah, non ah, loolu dama ko boolewul ak lenn mm-hmm. dafa nekk ah, boolewu ma ko ak lenn man c'est ça ma vie mm-hmm. ah euh, part liggéey bi may def donc loolu la quoi donc mu nekk loo xam ne dafa sedd sama xol euh, di fait ma nekk jigéenu jullit bëgg ko def ko en plus de ça fi mu jugee mu may rappeler lu foor ci man. Mm-hmm. donc mu boolandoo nekk loo xam ne ni que ni c'est c'est extraordinaire. Mm-hmm. pour moi. mais ñu gis léegi ijaab girls yi ni ni ñuy ni ñuy ni nga xamante ni noonu la ñuy muuroo dañuy muuru def pantalon des fois c'est un peu sexy est-ce que yow d'accord nga ak modèle boobu. man na kay ma wax la benn affaire moi j'aime pas juger les j'aime pas. mais man appréciation la ci am. waaw dinaa la tontu. c'est-à-dire j'aime pas j'aime pas juger les gens. Mm. je me dis que que euh, mu nekk loo xam ne ni que ni nit yi gis nañu ne que ne rafet na ñu teg ko pour man euh, départ la bu baax. il faut pas ñu couper ko départ boobu la bu baax la peut-être au fur et à mesure booy jël âge di xam ne ni que ne mënatoo sol jupe bu gàtt. Mm-hmm. mënatoo sol pantalon bu serré. Mm-hmm. après di dem ba nga xam ne ni que ne day yomb ci yow. Mm-hmm. comprendre lu ma donc il faut pas c'est pour man noonu laa ko jëlee quoi. c'est un bon départ ko defee mode mais après peut que ni nga ko def mode di ko jël da dem ba def gu parce que euh, col mel noonu soo ko tàmmee teg sa bopp. boo ko boo ko boo toogee defatoo ko da dafay mel da ngay dafay am dara lu la manqué. Mm-hmm. donc après au fur et à mesure les les dina la dina la kii dina la indi ci loolu et c'est c'est cool quoi mm-hmm. c'est c'est nice. d'accord c'est nice nañ ni femme de décibel nga parce que. juddu nga ci famille boo xamante ni wàllu musique ñu bëri ci la ñuy yëngu en l'occurrence votre frère am na ñu bëri ñum ci xëcc ingénieur de son aussi ngay côtoyer lu bëri li nga xamante ne mooy wàllu musique décibel yi mosoo xalaat def musique dans votre vie. non man au fait euh, j'ai toujours j'ai j'ai eu l'influence de de de de mon frère. Mmh. naturellement. peut-être qui a influencé peut-être euh, dans notre famille les gens qui sont intéressés par l'art. Mhm. parce que mooy sama taawu <laughs> donc euh, ñi nga xam ne ñëpp dañuy def musique c'est c'est Youssou qui les a influencés loolu c'est c'est clair mm-hmm. mais man quand j'ai quitté Sénégal pour euh, pour def sa dem sama def sama étude à à Londres première année bi ma def pour def pour def jàng gën a jàng parfaire sama anglais donc euh, beneen deuxième bon j'ai appelé mon frère j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que ne dafa am benn école buy def de formation buy def kii nu mu tuddati ingénieur du son mm-hmm. ça affaire boobu ça m'avait tellement plu que je me suis dit que mais imaginez-vous benn benn africaine jigéen jigéen bu ñuul bu nekk Afrique buy def buy def son. Mm-hmm. j'en avais parlé à, mon frère ma woo ko man daal ma j'ai trouvé li ma bëgg def mu ne ma lan mu ne ko damaa bëgg def formation ingénieur du son. Mm-hmm. mu ne ma ah, xam nga paa de <laughs> ma ne waa ah, xam naa ko mu ne waa je m'en mm-hmm. parce que aussi moom ci kii boobu lay kii j'ai fait cette formation la Euh, am sama diplôme après je suis rentrée au Sénégal bi may ñibbisi malheureusement on n'avait pas Youssou amagul woon comme ay studio ay affaires yooyu kii. Mm-hmm. yu nekkoon en place. donc c'était difficile pour moi d'exercer euh, le métier parce que mu am rupture léegi après ça. Euh, j'ai intégré son son son kii nu mu tuddati euh, sa structure. Mm-hmm. autant SAPROM ma dem fa rek toog ni parce que je pouvais pas rester nii rek ñibbi si toog euh, j'avais rien à faire donc j'ai fait une petite formation en en informatique moom moo ma wutaloon ba kenn ku ma doon jàngal informatique bu ma xam après j'ai commencé à fréquenter. nu mu la sa la SAPROM. Mm-hmm. donc bi ma commencé di fréquenter noonu foofu la goût vraiment. production ay affaires yooyu dugg si vraiment tout ce qui est euh, management de l'art dugg si si man après j'ai mis de côté au fur et à li naan loo bàyyi mu bàyyi la après bon euh, voilà quoi mhm. mais c'est vrai que ne ingénieur du son mhm. de de formation la mais euh, voilà quoi après dama seey ci yeneen métier yi mm -hmm. voilà <laughs> d'accord est-ce que c'était évident d'être femme nekk ingénieur du son parce que lu ci ëpp les garçons la ñuy gis ñuy côtoyer métier boobu non xam nga jigéen pour man amul benn métier boo xam ne yomb na ci moom. parce que autant booy xool sa jigéen ñi euh, nu mu tëddee euh, euh, góor ñi ñoom ñoo doon liggéey jigéen ñi toog ci kër gi. donc avec l'émancipation de la femme. les gens ont commencé les, les femmes ont commencé à aller à l'école à s'ouvrir euh, voilà à, à embrasser des donc boo xoolee euh, métier yëpp jigéen métier bi mu gën a mën moom mooy métier bi nga xam ne ni que ne mooy yor njaboot. Mm-hmm. yeneen yu mu yu mu am rek daf ko daf ko daf ko daf ko daf ko daf ko jàng am ci mm-hmm. xarañ te dugg ci. Mm-hmm. donc muy comme de type de métier yëpp yi am. type de métier yëpp yi nga am ni que ne jigéen bu ci dugg boo ko xoolee di nga ci gis ay jigéen ñu xarañ yoo xam ne dañ lay dañ lay yéem mm-hmm. dañ lay yéem parce que peut-être que li naan suñu formation la quoi ndax dañuy màgg suñu ak suñu yaay yi ñu ñuy jàngal bas âge jàngal ne la defal lii di la jàngal liggéey mm-hmm. bu liggéey boobu nag loolu ngay transposer si si kii la ba pare euh, le fait de jom boobu nekk ci yow danga naan que ne bu ma nekkee ak ay góor kenn duma ci gën mm-hmm. donc c'est ça mais mais mais yomb c'est c'est c'est par exemple métier dafa am métier yoo xam ne métier góor la. Mm-hmm. métier ay nekk caméraman ay yeneen ak ay affaires yooyu yéen yu bari métier góor la woon. Mm-hmm. mais les les femmes l'ont kii euh, l'ont émancipé mm-hmm. voilà dugg si affaire bi da nga gis góor jigéen bu yore caméra gis jigéen buy bu jigéen léegi jigéen buy def lépp nga mécanicien gis gis lépp ngay gis jigéen ñi di ko def ingénieur du son. voilà donc euh, voilà et ça fait plaisir complète et puis mm, dafa pour moi ça a rendu le, le monde beaucoup plus agréable. Mm-hmm. À quoi consiste votre rôle de directrice de Prince Art? Mon rôle de, de directrice de Prince Art c'est, c'est de de m'occuper du management de la société. cest mm-hmm. C'est-à-dire euh, préparer comme mm, toute personne qui gère une entreprise c'est-à-dire c'est le administratif ay affaires yooyu lay mm-hmm. mais man nag euh, au fait. moi je je di me dis mm-hmm. parce que y' a beaucoup d' yoo xam ne ne que ni on est on a eu à les produire sax man maa leen déniché man maa leen gis. Euh, et ça ça me plaît beaucoup parce que euh, sama fibre yi foofu la jógee. Mm-hmm. man ñun ñun suñu kër euh, sama yaay waykat la woon. Mm-hmm. ah sam su ñëw di way ay maam dañ doon way donc loolu dafay facile ci man da ça coule dans voilà donc donc euh, euh, euh, au-delà d'être là pour pour pour gérer les activités de Prince Art suñu amee ay production lii ma kii defar ay budget defar ay plein de choses yooyu lay loolu lay toppatoo c'est c'est l'aspect vraiment administratif de de de l'entreprise moom lay toppatoo mais damay dugg si je donne mon avis sur sur sur sur tout ce qui se passe artistiquement mm-hmm. parce que nag sama avis des fois dafay dafay baax mm-hmm. ah, parce que voilà dafay baax ci ci ci ci affaire yi quoi mm-hmm. donc voilà Euh, ki nga xamante ni dafa euh, bëgg a intégrer seen label Prince Art léegi yow yaay apprécier ay qualité artistique am ndax waa ji par exemple artiste bi am na yenn qualité yi ba ngeen mën a liggéey ak moom wala. non non non fait c' est c' par exemple ñun au niveau d' ici. Mhm. c' pas quelque chose boo xam ne dañu naan kii moom moo ko def. c' est libre à tout le monde même sunu euh, ki ñuy liggéeyal mën na génn gis ay waay mais Ibou ngi gis benn waay a way ay affaires yooyu maintenant ñun am na am na ay façon artistes yu nu neex. Mhm. au niveau de Prince Art yoo xam ne ni que ni dinañ bëgg di bëgg liggéey ak ñoom euh, développer seen carrière et la plupart du temps on aime ne que ni dañu jóge ci. néant Mm-hmm. et on on on ñu màggandoo waaw waaw waaw parti de rien mm-hmm. et que ñu ñu ñu màggandoo ak ñoom mm-hmm. boo xoolee artistes yu bari yu ñuy liggéeyal euh, à part quelques-uns ñu ci bari dañ leen di jël bi ñu nekkee euh, plus kii après ñu màggandoo ak ñoom quoi donc tout le monde que man ni may gisee ay yenn artistes naa Ibou Chi kii moom il faut kii dama ko fan man y a des artistes yoo xam dama leen di fan j'aurais bien aimé ñuy liggéey ak ñoom ainsi de suite ainsi de suite y a des artistes y a plein d'artistes nag la majeure partie c'est eux qui nous ay kii wala ñëw déplacé wala ñu am nit bu ñu xam ñu ñëw voilà ñu dee su fekkee ne vraiment seen talent intéressé nu ah bu boobaa ñu ñu ñu ñu liggéey ak ñoom. d'accord alors euh, parlons des des droits d'auteur euh, D'clique euh, changé BSDA indi euh, pour euh, pour la SODAV D'clique bi fan la jógee. non en fait xam nga xam nga euh, BSDA état moo ko fi tegoon Senghor moo ko fi tegoon c'est en 1972. Mm-hmm. moom moo ko fi tegoon mu nekk société boo xam ne société mën na ne société état la mais li muy gérer mooy alalu privé lay gérer parce que euh, euh, nu mu tuddati état du ko jox xaalis mais dafay dem percevoir ci ci œuvre yi ñuy exploité yu artistes yi mm-hmm. mu ñëw euh, jël jël xaalis boobu jël ci ay frais de gestion après la ca des mu séddale ko léegi mu am dans le monde depuis longtemps les gens ce qu'on les sociétés de gestion collective mooy droit les les droits voisins yi ñuy wax. Mm-hmm. boo xoolee ci monde bi euh, pratiquement presque toutes les sociétés de gestion collective artistes yi ñoom ñoo ko moom. mu am y' a plus de vingt ans des gens qui se sont levés qui ont dit mais affaire bi su fekkee ne état bi kay dugalu ci dërëm que ci ci ñàkku artistes yi la ñuy jël di collecté. Mm-hmm. di di di fay artistes yi te di ca fay ña cay liggéey mais boobu artistes yi ñoo ko moom indirectement. parce que su fekkee ne ah, ah, état bi dafay fay frais de gestion yi fayal fayal fay directeur yi fay employé yi fay euh, conseil d'administration bu mu fa teg loolu bu boobaa di nga ne ah, nguur dugal na ci loxoom. mais su fekkee ne xaalis boo ñuy ba kii bi di am nu mu tëdd ci société bi di am ci privé yi jóge ah, mooy que ne société bu état bi teg la mm-hmm. te privé yi di jëriñ di di di jël xaalisu euh, privé yi di ko di ko gérer mm-hmm. donc nag mu am y plus de vingt ans des gens qui se sont levés des artistes qui se sont levés qui sont très avertis et qui se sont dit ñun ñun léegi ñun affaire bi suñu suñu yëf la ñoo ko mm-hmm. moom jox delloo leen ñu suñu yëf affaire bi commencé di agrandiru man ma bokkoon aussi si comité de pilotage boobu il y xeex si nekkoon si benn benn jigéen boobu. Mm-hmm. xeex si aussi xeex si lu yàgg pendant euh, beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de de de de temps ñu fexe xeex ba nga xam ne ni que ni ñëw nañu pour ñu reconnaître aussi au-delà des auteurs ñu reconnaître droit wu artistes interprètes yi. Mm-hmm. reconnaître droit wu producteurs yi. donc ñu xeex ba nguur gi d'accord nekk ne lii aussi dëgg la ñu jël euh, nu ci tuddati euh, SODAV BSDA seeyal ko ci biir SODAV. SODAV jël gérer nag artistes yëpp. Mhm. c'est noonu noonu la demee. mais ñu gis ni tey la kaas yi ci wàllu artistes yi gën a bari ñuy réclamer tout le temps de l'argent quelle est la révolution avec la SODAV. non au fait loolu laa lay wax sànq c'est-à-dire leket du neen. Mhm. naxu li béy. c'est parce qu'il y a de l'argent il y a de l'argent on parle on parle pas de de de de de deux cent millions wala trois cent millions. yu EBSDA daan def bu njëkk on parle de de presque léegi milliards avec juste le droit d'auteur mm-hmm. yaa ngi gis ci affaire Covid bi euh, état bi ne dafay confier euh, SODAV un milliard pour mu distribuer ko ci lool la gars yi di nekk donc on parle de milliards et ça suscite l'intérêt c'est normal. Mm-hmm. man gisuma ci lenn loo xam ne da ci anormal gisuma ci lenn loo xam ne ne que ne daf ma choqué. lenn laa dul nangu moom mooy que ne loo xam ne ni que ne du waxu bu bu bu du lu xam ne ni que ne du wax dëgg. Mm-hmm. moi j'aime pas man dama bëgg nit buy kaas na ko taa kaas loo xam ne ni que ni euh, tegu ko ngeen baal ma ci kàddu gi tegu ko ci ay fen. Mm-hmm. ci ay wax dëgg la ko teg. tu vois que je veux dire mais on est dans un monde où les gens sont libres mën nu gis benn affaire bi ni que ni lii dafa rafet peut cent personne ne ñëpp wax nañu kenn ñëw ne que ni man neexuma. Mm-hmm. mais pourtant kooku nit boobu nit boobu AVM dafay compter donc d' autant plus que euh, SODAV structure artistes yi la ñoom ñoo ko moom. mais ñun on peut pas museler les artistes et leur dire que vous ne vous ne vous ne vous ne vous ne dites rien. Mm-hmm. peut-être que ñun am na suñu façon bi ñuy liggéey boo xam ne neexul nit ñi peut-être que am na ñoo xam ne ni que le fait que moi. Euh, vous bien que man bi ma bi ma bi ma bi ma élire président conseil d' administration ça a soulevé beaucoup de cari coow lu bari na woon mhm. te coow bi lan moo koy indi parce que nduur laa sant mhm. ça n'a aucun sens mhm. je suis artiste je suis ayant droit comme tout le monde demain man su ma fi jógee beneen ayant droit mooy toog kii ko d' avant moi y avait quelqu'un d'autre qui était là Angèle Diaban cinéaste moom moo nekkoon pes moo njëkk nekk PCA wu SODAV après man ma ñëw man productrice la moo tax ma ayant droit la moo tax ñu votel ma je l'ai pas j'ai pas j'ai volé ma place on m'a pas imposé j'ai j'ai j'ai j'ai euh, nu mu tuddati euh, euh, posé ma déposé ma candidature comme tout le monde on a voté et j'ai gagné mm-hmm. c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça te je ne je ne suis pas une nularde je suis une professionnelle mm-hmm. xam lu may wax jaamu métier bi nag xam bu baax fu may teg sama tànk bokk ca combat bu bu jëkk bu jëkk ba ba affaire bi tegu lu sotti nag am borom. Mm-hmm. mais nag moi je peux pas empêcher les gens vraiment on est on est en en en démocratie nit yi dañuy wax nañuy bàyyi nit ñi di wax li leen naqari. Mm-hmm. mais nag nit bu nu waxee lu leen naqari nan ko teg ci dëgg. man looloo ma ñor leneen ñoruma ku nekk tout le monde est libre de partir parce que de de de parler que li li li sama place ñëpp ko bëgg. Mm-hmm. <laughs> c'est normal. vous essuyez beaucoup de critiques. Mm -hmm. psychologiquement noo ko gérer. Ah, c'est une question que beaucoup de gens me posent. Mm -hmm. xamoo sax yow li ma c'est une question que mes proches me posent c'est une question que les gens qui m'aiment me posent c'est une question que tout le monde me pose. Mm -hmm. parce que dama xam maay kan loolu kese la man dama xam maay kan. Mm wurujuma sàccuma. je suis une de l'art ma jox ko lépp soo def aw ma ca dara fayeeku ma ca salaire. Mm-hmm. sama téléphone bii ma yor maa koy fayal sama bopp. sodaaf jëndalu ma oto sodaaf mennum carburant la may jox je suis la PCA li ma koy li ma koy faral di waxee temps la plus pauvre du monde. sérieux? mes administrateurs sont les administrateurs les plus pauvres du monde. man xam nga lan moo ma intéressé si SODAV. Hmm. liggéey ba def résultat te résultat yi moom moo tax bruit bi jug. c' est normal c' est de hmm. moom moo tax bruit bi jug. Hmm. te aujourd'hui lu amul dara du intéressé kenn dafa am dara. demee sama fan dama fay jugee en tant que di keneen nekk fa. na liggéey bi continuer man te lu tax may rey sama bopp. parce que dama bëgg droit voisin yooyu ñuy wax ñu fexe ba ñu mettre ko en œuvre au Sénégal pour que man demee en tant que producteur. bu ma tàllalee sama loxo ma fayeeku samay droit mhm. comme tey ni koy autorité di fayeeku loolu ma ci ñor mhm. leneen intéressé wu ma ko d'accord ah donc aujourd'hui man le fond du problème moom mooy que ne pourquoi je blase ce que le gens disent parce que dama xam may kan mhm. je me connais moi et ñi ma xam-xam nañ ma je pas besoin de me justifier pourquoi je me justifie je me justifie pas la SODAV c'est une structure privée qui qui est une structure des artistes artistes yee cay wax ku bokkul soda boxoo ca donc tant mieux c'est entre nous on on voilà on on se connaît mhm. Ngoné Ndour nag lu nekk mën nga ko mën nga ko ko waxal mhm. waaye dëgg ku ku nekk boo waxee di nga ne wax fa dëgg yàlla liggéeykat la mhm. te loolu laa fa yóbbu Sodav liggéey ak transparence bu mat sëkk man su ma tëddee damay nelaw damay yandoor ci affaire Sodav bu ma tëddee damay yandoor yandoor parce que fistine faye ñu ma dërëm <laughs> on m'a on fay ñu ma dërëm. Ah fay ñu ma dërëm. au niveau de la SODAV amul dërëm buñ ma fay. j'ai pas de salaire à la SODAV. ah tout le sama yi nga xam ne ne que ne mooy sama ay prérogatives en tant que PCA man maa décidé sama bopp ne duma ko jël. parce que tey parce que xam nga tax ma ko jëloon. Hmm? ah kon wax bi dañ koy multiplier par cent cinquante mille. su ma ko jëloon tey wax ji maa ko jël maa ko muñ moi je suis pas millionnaire. Hmm. je suis pas millionnaire je suis comme tout le monde je suis jeune sénégalais simple boo xam ne que ne depuis bi ma xamee ma xam mën liggéey ba léegi maa ngi liggéey di ñafe. Mhm. di teg ay projet di dóoru ko daanu tey ñu jug tey ñu daanu. Mhm. ku mu doon yow nga toog sama place ay prérogatives da nga koy jël. c'est moi qui ai décidé de ne pas prendre parce que je sais que ne sant bi diis na torop. Mhm. mais du santu gàcce. Ndour diis na lool mais du santu gàcce. ça c'est <laughs> alors euh, euh, parce que tam partage bi du artistes yëppay am ñi nga xamante ni xëy na amuñ il pourrait se sentir frustré ñooñu naka ngay procéder ak ñoom. waaw au fait xam nga droit d'auteur c'est pas du affaire yaa ma neex. tey jii bu fekkoon ne yéen ñi ñëpp ay artistes ngeen yow ngay jouer ay concert live. kee nekk ci hôtel yi di jouer kii nekk ci restaurant yi di jouer ñii ñuy jël seen musique yi kii ñu jël musique am di ko teg ci rajo yi. droit yooyu la ba yow boo booy tëgg mënoo tëgg te SODAV joxu la autorisation nga ñëw fay droit d'auteur droit yooyu la ñuy collecté léegi droit yooyu yow œuvre ya nga fay exécuté même su fekkee ni waykat bi nga yow peut-être que yow waykat bi peut-être artiste interprète la nga peut-être la loolu ngay way noonu dañ la ko bindal moomoo ko peut-être que yow la ko bindal peut-être que œuvre bu ci composition bi am na keneen ko ko composé ci arrangement yi keneen moo ko def bu nu collecté droit boobu parce que yow sa œuvre boo en tan que auteur œuvre boo ti def pour SODAV mën la reconnaître pour mën la fay il faut que nga dem déclarer ko. Mm-hmm. day jaar boo defee nekk ni man bind naa way tel bind naa way tel da ngay dem SODAV ne leen man bind naa way tel SODAV jël way enregistré way boobu jël way bi jàllale ko bi nga bind mun nga bi nga ne yow yaa ko bind yow yaa ko wax ñu jël ko jaarale ko commission d' identification commission d' dafa am ay kàngam yu fa ne. yoo xam ne ñoom seen rôle dañu am culture musicale noo xam ne ni que dañu am na ni que ni par exemple bu dee wayu traditionnel am na koo xam ne dem ma nga fa am na culture wayu traditionnel ba nga xam ne bu déggee way day ne ah noo tudd noo to nanga tudd mimi mimi ne ah mimi de nee na way bii moom moo ko moom kooku ne la mimi de way bii mu ne moo ko moom moo ko bind déggoon naa ko ca jamonoy tel diw moo ko moom mm-hmm. wala kii composition bi di ainsi de suite ba commission bi d'accord ne way bi peut-être ñu ne ah mi ni 100 pour cent moom moom way bi wala way bi bin bokk na ko kee wala daf ko jëlee fenn wala bi da ko sàcc ak wala loolu ngay dégg ñu naan plagiat mm-hmm. wayu jàmbur la ay affaires yooyu loolu bu commission d'identification boobu paree liggéeyam nekk ne œuvre bi ñii ñoo ko moom mm-hmm. loolu information boobu lay jël ñu yóbbu ko service bi ñu naan service répartition service répartition yi teg ay clé de répartition ca xaalis boobu nga ñu ñu fay ca rajo yeeg ca yow concert ya nga tëgg xaalis boobu la ñu jël peese ko jël ci dindi ci frais de gestion ni mi mi way bii de tëggoon na ko ca concert bee way bii lii la am mm-hmm. donc du yaama neex comme mm-hmm. <laughs> comme nga fi may comme voilà tout est la transparence et c'est clair donc un artiste boo xam ne ni que ni te tes œuvres ne sont pas exploitées, ce qu'on appelle un artiste qui n'est pas dynamique, tu ne peux pas avoir euh, qui, euh, nous euh, beaucoup de, beaucoup de rémunération. Mm -hmm. bah, de Donc, donc lolo, quoi. Et puis, il y a le problème des, des, des, télévisions et des radios qui se posent, mm -hmm. qui payent mal le droit d'auteur. Voilà, tu non, non, non. Nous utilisons des œuvres artistiques, vous faites comment avec ces mais da nga da nga ciy topp di fayee ko bu nu mënul bu nu boo fayee ko ba ñu fayee ba mënul la fay nga yóbbu leen procès. Ah ah oui c'est ce que par exemple par exemple vous aviez bu yéen ñëpp lire ngeen euh, problème bi fi bi daaw bi bi SODAV am ak festival jazz de Saint-Louis. Mhm. tout le monde l'a suivi. Mhm. c'est quand tu refuses de payer des droits mën nañ la kii ñu defal la kii topp si topp si topp defal la amal alors xam nga loolu lan la <laughs> on appelle ça vol c'est du vol mhm. c'est le fait de de de prendre euh, les œuvres de quelqu'un de les diffuser et euh, de ne pas payer c'est c'est de la piraterie sa c'est de la piraterie yow euh, pirate bi nekk ci mbedd bi yore CD CD wu artiste bi jël def ko loolu loolu la. Mhm. c'est ça c'est ça le. est-ce que souvent bu ngeen leen traduire en justice di ngeen am gain de cause. waaw la plus tard la plupart du temps nag euh, xamal ni naan que ne d'habitude ñu bari da nekk ne euh, nu mu tëddee société de gestion collective bu baax dafay mhm. bari procès. doo mhm. nekkee ci àdduna bi boo dem boo demee boo demee ci àdduna bi dañ naan société de gestion collective day bu baax bu baax. day bari procès mm-hmm. parce que y a trop de de yoo xam ne ni que nii dañuy jël œuvre nga xam ne ni que ni dañ koy exploité mm-hmm. te duñ ko fay mm-hmm. donc ñun ñun dañu dina am des fois ay procès comme ce que euh, le le le problème qui s'est passé avec kii mais après dina finir toujours parce que ñi ci toog waxtaan waxtaan ne la que waxtaan la que ni mais payel sa droit nga def sa moratoire di fay mhm. am na rajo yoo xam ne ni que ni ak télé yoo xam ne ni ñi ngi fay ci moratoire am na ñu ci réglo mhm. am na ñoo xam ne ni que mhm. am na ci aussi yi am na ci restaurant yi am na même ci ne que ni dañuy tëgg concert parce que nit mën na tëgg concert am ba pare yaakaaroon ci benn affaire boo xam ne ni que ni daf la ne may ma rek euh, damay tëgg concert bi su ma si su ma paree ma fay la far concert ba nekk fiasco léegi naka ngay def Euh, wàllum droit d'auteur fii ci Sénégal ñan ñoo ciy gën a fayeeku loolu salaire u jàmbur la mais mais mais il faut savoir qu'il y eu une révolution depuis quelques années mm-hmm. chez les euh, religieux ok mooy les les chanteurs religieux c' est dû au ringback tone. Mhm. moom mooy boo wootee nit nga dégg kii nga dégg son bi. d' accord waaw donc religieux yi moom am na nañu franchement ils ont révolutionné la la la la kii nu mu tëddee la gestion collective euh, au Sénégal. parce mhm. que ñi ciy ñi ciy gën a percevoir kii ñi gën a percevoir aussi si. Euh, nu mu tuddati ci euh, euh, ci droit d'auteur mhm. bokk na ci artistes yoo xam ne bokk nekk ñu sax Dakar les artistes qui sont dans les hôtels ay Mbour ay affaires yooyu am na ci ñu xam ne dañuy am dañuy am percep dañuy am nu mu tuddati droit yu baax mhm. seen ay Dakar aussi am na ay artistes yi ngeen di dégg artistes yi si gën a dox rek mhm. kii perception yu baax kii yu baax la ñuy am Sodav bu la fayee dëgg mën nga am ba ñaata million mais est-ce que xam nga ni SODAV am na ñoo xam ne ne que ni il se retrouve avec une vingtaine de millions vingt cinq millions par an. ah bon ah oui ah ki gën a tuutle na. ki gën a tuut gën a tuutle zéro franc <laughs> maa la gën a dee. <laughs> alors mes auditeurs je rappelle que nous sommes avec Tata Ngoné Ndour ñu ngi ko fekk si fii di waxtaan ak moom alors ñu ñëw ci wàllum seen petit gàllé coow li bëri na torop noo ko gérer. baal bëgg <laughs> nee nañ seen petit gàllé day yàq gone yi. Hmm? li yàq gone yi bari na de. li yàq gone yi bari na moi ce débat là du ma si dugg. Mhm. Ah, vraiment débat boobu du ma fi dugg. mais expérience ban nga ci jëlee seen petit gàllé seen petit jeunes yi. une très belle expérience. Mhm. magnifique expérience. j'ai pu découvrir des enfants extraordinaires. Mhm. c'est magnifique ça. on a décou on a découvert nous tous. yéen ñëpp seen petit gàllé loo ko bañ bañ bañ ñu ko seetaan. boo ko seetaan nu kat boo ko sa kër dina ko seetaan bu ko bañ bañ bañ di nga ko seetaan c'est une émission qui se passe pendant les vacances mm-hmm. que les enfants aiment nous on dans le monde de la culture mm-hmm. lépp lu ñuy def ci culture lay wéeru ku keneen ku nekk sa métier sa secteur nga def dara pour xale yi loolu am solo mm-hmm. ñun culture la ñu xam mais quand on di seen petit gars day yàq xale yi waaye yàqu benn xale doo am remords yow j'ai pas de remords du tout parce que xam nga mooy remords moom mooy que ñu fexe ba bàyyi loo ma li may li may def kenn mënu ma bàyyi loolu li may def wala mu bàyyi loolu ñuy def parce que li ñuy def dañ koy def dañ ko teg ci yoon une entreprise on travaille. Mm-hmm. xanaa état bi jóg ne que ne bi dootu fi amati ñi xam ne ñoo yore réew mi ne que ne affaire bi dootu fi amee wala leneen ak leneen doo fi amee. Mm-hmm. que maa ngi yore sama bakken su Prince Art di continuer nit ñi di bëgg programme bi télévision yi existé ñu koy teg kenn mënuma ma ko tere coow du Sénégal coow du fi mës a jug. Mm-hmm. coow du fi mës a jug ci nag fànn boo ko mënti jël. fànn boo mënti jël ci Sénégal coow kese la coow kese la moi nous on est en de faire notre travail te dinañ ko def ba mu mat sëkk le chien aboie la caravane passe. c'est ça simplement. Mmh, simplement. d'accord alors euh, Tata Ngoné Ndour bëgg nañ tam euh, nga ñëwaat tuuti ci li nga xamante ni mooy sa enfance fan nga juddoo votre cursus scolaire fan nga ko passé. maa ngi jóge Médina. Mhm. Médinoise waaw man Medina laa juddoo maa ngi juddoo euh, kii nu mu am na benn benn booy dem euh, boo jëlee corniche bi. Mhm. Euh, wetu kii nu mu tuddati village artisanal fii kii bi léegi fi ñu def loo fii tunnel bi noonu Soumbédioune. Mhm. am na benn benn kër bu fa bu fa nekk boo xam ne nekk ni pharmacie moo nekk foofu léegi. Mhm. pharmacie booy romb foofu di ko gis di kii man foofu laa juddoo si kër googu. laa laa juddu après ñu toxu dem rue 15 fii RFM nekk tey foofu la nu foofu la ñeneen ñi juddoo mais man foofu laa juddoo. Mhm. après ma ma ñu inscrire ma école Soumbédioune ma jàng école Soumbédioune jógee école Soumbédioune dem lycée Kennedy jàng fa dem lycée Kennedy après dem nga collège Sacré-Cœur après voyagé euh, dem continuer sama jàng <laughs> loolu la mhm. donc man man bi ma nekkee xale dama nekkoon xale bu kii je ne suis pas j'ai jamais été tur waaw j'ai jamais été turbulente man man man mhm. j'ai jamais été turbulente ni ni ni nga ma gis ma ne ñu muñu maaral noonu je me dis que même dan dans ma tête est-ce que j'ai entre temps j'ai grandir naa <laughs> grandir naa c'est une façon de parler bon je veux dire que ne j'ai pas euh, voilà voilà du ma du ma nekk ma woon nit boo xam ne ne que ne dama nekk sama enfance def des choses yoo xam ne ni que ne am na ay affaires yu yoo xam ne nekk ne kii la quoi j'ai toujours été sage. Mm-hmm. même à l'école xamaloon ma woon def ni dugg ni ay j'ai toujours été sage. Mm-hmm. Mm-hmm. vous êtes passé dans beaucoup d'épreuves certainement lan moo la ci gën metti. tamit bu ma ko laaj bu ma metti kay yow xam nga ko. de ses tontons euh, ah oui. ah oui loolu loolu moom si loolu c'est c'est loolu loolu mu ngi a rek quoi. Ah. d'accord ah. tata tata elle pense au remariage. non. xalaatuma ko parce que. Euh, xalaatu xalaat xalaatuma quand on dit quand je dis xalaat mooy euh, nekk nekk ne mu nekk une chose boo xam ne dama naan que ni dama war a sëy ak kii calculer wu ma ko. Mhm. saa yu ñëwee baax na sama liggéey laa tal je ne pas dans ça. Mhm. voilà parce que man xëccuwuma dara suñu borom moo ñu sàkk rëdd suñu jëb yi ku ci nekk bay dund ba ba ngay dee li nga li nga war a am sa àdduna di nga ko am. Mhm. li nga ki nga war a àndal di nga ko àndal. loolu bés bu jotee sunu borom a ko xam. Mm-hmm. voilà mais euh, je ne suis pas à la recherche de voilà coûte que coûte il faut il faut que je suis bien. je suis bien. Mm-hmm. Talla on vous respecte beaucoup mais am na kuy fëgg wala. amul kuy fëgg <laughs> amul kuy fëgg amul. amul non amul. ah dañoo dañoo ragal sama tata wala nu mu demee noonu. ah ragal nu mu sa tata xam nga nag góor yi est ce que jigéen ñi muuru mais est ce que dañuy ragal gars yi naan que ni mais kii daal moom boo muuroo moom da lay këpp këppal rek la lay nekk di la defal def na ak weer gu bari <laughs> non c' est ah yooyu nekk vraiment xoola man taluma taluma ko taluma je suis tellement bouffée par le travail déjà au delà de de Prince Art y a la SODAV qui me bouffe ma vie. <laughs> qui me bouffe ma vie moi je ay ay heures waaw voilà c'est c'est ça et j'adore ça ça loolu daf ma neex. d'accord daf ma neex affaire yi di ñu ciy wax yooyu. Mhm. xam nga ñii di wax fii d'accord ak yooyu dafa neex. Mhm. yooyu buñ ko dindi yooyu ñooy neexal affaire yi affaire yi d'accord ñu way lii affaire yi kii sàcc la kii la ok à la fin de la journée ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. Mhm. mais tata ban lecture nga am ci attitude du artiste sénégalais parce que ñoom. Euh, on a comme l'impression foo xaalis di jógee rek cool dafay dafay bëri ci ñoom gis nañu euh, lu ñu leen manne financière bi ñu leen jox ci force Covid bi y a beaucoup de coow léegi ah, artiste <laughs> ah jotagoo leen jotaguñ ko de ah parce que y a le bi ñuy wax ne ak coow li nag non l'argent n'est pas en fait y a le sous comité musique qui est en train de se réunir pour déterminer les termes de référence Mhm. mais xaalis ba mu nga ca ministère de la culture un milliard u SODAV boobu mhm. SODAV gisagu ko de mu mhm. ngi si ministère de la culture le ministère de la culture attend les euh, la décision bon les propositions du sous-comité musique pour pouvoir jéego def jéego jox ku nekk kii mais jotagun ko ah. Mhm. jotagun ça je tiens à le dire sànq rek bi may añ maa ngi añ ak benn auteur mu naan mun ah yéen 3 milliards yi ngeen yore doo kii ma ne ko 3 milliards yi yor ñu déjà on parle de 1 milliard yor ñu jotagun ko ah. Mhm. waaw jotagun ko ah on l'a pas encore reçu. Mhm. au sein de la famille ñoom Youssou Ndour ay abi Bouba kan moo ci gën a nekk sa binôme sa xarit. man nag xam nga euh, peut-être xam naa li ma li ma nekk ci digg bi la euh, nu mu koy waxee. li ma li ma nekk si si si si digg bi da ngay nekk un xaritu ñëpp. Mhm. man je suis je suis je suis euh, ami de tout le monde mais tout le monde sait que ni buuba xarit la. Mhm. sama la pour pour que que que jege na ma quoi. Mhm. daf na ma sama xarit la yàlla moom mooy def loolu ah. moom mooy def loolu si si si ay mbokk ñi ay ñoom ibu ay affaire yooyu man je les prends pas comme sax mes frères je les prends comme sama ay doom. comprendre nga lu ma Ibou mooy sama caatu yaay. Mhm. donc je je le prends mm, comme moom moo topp si njaga. Mhm. je les prends comme comme mes enfants. Mhm. voilà donc jëluma leen comme ay ay ay ay rakk moom sama moom mooy sama sama lépp. parce que fa dëgg yàlla euh, balaa kenn di ma gëm moom ma njëkk a gëm. c'est lui qui a payé mes études. ah moom bi may wax benn année donc jour bi ma njëkk Youssou njëkk ñëwee na ma que ne dama lay confier xippi usine de duplication xippi dama tiit ba ne ko man loolu mënuma ko de <laughs> j'avais tellement peur parce que il avait vu quelque chose en moi que peut-être que moi que moi pas vu dama mm-hmm. ko ma ne ko man loolu mënuma ma ko si mën nga ko xam naa sa caractère mën nga ko mm-hmm. c'est là où d'ailleurs le management laa jël guubu management mm-hmm. foofu laa jëlee guubu guubu management quoi donc moom moom ba pare dama ko fan ah ouh ah yow au sein de Prince Art en tant que directrice hein ñaar la lay fay. non Youssou moomul Prince Art. Mhm. loolu il faut ma leeral ko. ok Youssou Ndour bokkul Prince Art moomul Prince Art Prince Art ñetti nit ñoo ko moom Ngone Ndour Ibrahima Ndour ak ak euh, kii ak Ndiaga. Mhm. Euh, loolu Youssou Ndour moo xamul sax cest à loolu tax di di wax yi muy jaxasoo Sénégal. Mhm. xamul sax euh, pour te dire ci lan la nekk. ah oui Youssou moom ci lan kañ lay xam dara peut-être def benn euh, kii benn albumu benn artiste artiste bi ne daf ko bëgg a déglu ko Youssou wala ay affaire yooyu. wala mu diis benn affaire naan wuy affaire bi nice na mm-hmm. wala ñu war a Ibou war a liggéey ci albumam. Mm-hmm. war a liggéey ci ay albumam ay affaire yooyu Youssou bokkul Prince Art dërëmu Youssou Ndour un franc euh, cinq franc Youssou nduur un franc duggul Prince Art. Mm-hmm. moomu ko mu ko ah c'est c'est c'est il faut que il faut que nit ñi ñu xam moo tax ma la que fii dëkk bi dañuy dafa bari wax quoi dafa bari wax wax wax wax wax wax wax wax mais bon euh, voilà <laughs> da ngay bàyyi nit ñi wax rek li ñuy def ñuy def ko. Mm-hmm. ku nekk libre nga def li la neex. Mm-hmm. ah moo tax j'adore j'adore la chanson de Viviane Tere dund ah bon mën nga ko. Tere Dundu c'est-à-dire que c'est une chanson magnifique. Mm-hmm. dundal sa dund ba maag sama dund. les gens veulent remplacer Dieu sunu borom c'est le seul juge. parce que ñun ñëpp kenn lañu ci sunu àjjana leeru nag kenn. moo tax alaxira dina metti kenn la sunu àjjana leerul. nit ci duñu yàlla bàyyi leen sunu borom juger ay jaanam parce que ku ci nekk nag buñ doon creuser ci yow am na loo xam ne que ne xaw na tilim ci yow. doo bëgg mu feeñ mm-hmm. ku ci nekk bu ñu doon xool ci yow am na lu cay ñuul parce que nul ne parfait lu dul ki nga xam ne ni que ni suñu borom moo ko sàkk mu gën ñëpp muy sang bu tedd bi mm-hmm. donc il faut que nit yi bàyyi di juger nit yi mm-hmm. donc da def li nga war a def leneen yi nga bàyyi ko kii ñun du ñun on est man moi je suis pas là. pour ku képp ku wax critiquer Prince Art wala critiquer Ngoré Ndour critiquer Youssou Ndour ñu génn ci rek mu mais kon xanaa tout ci loolu la ñuy nekk kon tous les jours. d' accord ci loolu la ñuy nekk tous les jours. mais tata on a aussi l' impression que yéen artiste bu ngeen encadré bu génnee ci label bi day fay. Ah, ah si n'avez-vous pas cette impression vous. non. les gens le disent xam nga en tout cas les gens. on l'entend plus. ah Pape Diouf dafa fay. ah dafa xaw a kii ah, il faut pas dire ça. ah, ah peut-être que il est en train de travailler non non non non je suis pas d'accord sur ça je suis pas d'accord. xam nga nit euh, euh, man dañu xamul sax lan man pour man lan la ñuy woowee fay artiste bu fay. waaw waaw mais bon waaw mais waaw mais xam nga nit bu jëlee ay responsabilités ni dafay génn fenn ñun quand on est là on travaille on bosse tous les jours que Dieu lu nu am nit ñi xamuñu lu nu ñàkk xamuñu xamuñu on travaille on met un, un, plan de carrière on ci di ci daw di teg ay artistes yi di leen di leen di leen di leen toppatoo di leen wutal ay interview di leen wutal ay plateau télé di leen defal ay vidéo y a un c'est c'est c'est un travail quotidien qu'on fait non je sais pas moi je sais pas mais y yoo xam ne ne que ne peut-être que boo xam nga dara boo li naan que ne boo nekkee ci kër lu yàgg at at yu yàgg nga nekk fa après nga quitté fa peut-être c'est juste le temps que ngay jëlaat sa ay repères. Mm-hmm. comprendre lu ma le temps ngay jëlaat sa sa ay repères mais man xamuma loolu loolu c'est-à-dire loolu mooy wax bu gën a tilim si àdduna fay. c'est c'est fay da ngay loolu quest que ça veut dire je ne comprends pas ce ce truc pour man loolu pour man loolu non non non attends mm-hmm. man pour man loolu waxu waxu pour man loolu artiste bu ko wax pour man loolu waxu ko xam ne ni la ni pour man. da nga génn ba pare après nga hésiter. Mhm. tu ne peux tu ne pas te prendre en charge c'est ça quand tu dis que ne da ngay dama quitter label bi label dama dañ lay fay qu'est-ce que sa veut dire ça y a combien de télévision dans au Sénégal y a combien de radio au Sénégal yaa a combien de people au Sénégal y a combien de spectacles y a combien de de chants mais nit la doon bëgg. ba tey dañ lay bëgg que nga nekk prince art dañ lay bëgg que nga jóge prince art lay bëgg mhm. à la limite sax les chances day fans boo jógee ci label bi sax dañuy gën a dañ lay gën a jàppale sax parce que mooy loolu quoi parce que nit euh, artiste ak fansam pour man loolu c'est la chose la plus dégueulasse à diir mhm. parce que bu dee benn fan la label boobu taxawu na la mettre na la en fëgg na la ba nga set mu teg la wane la nit ñi nit ñi nit ñi kii loolu mooy wax bu gën a salté bu gën a bon c'est waxu perdant la mm. loolu waxu perdant la nit kenn warul nangu di daanu parce que tous les jours que Dieu danga war a góorgóorlu nekk au top ku mu ti doon ka nga nekk Prince Aro y a combien d'artistes yoo xam ne bokkunu nu Prince Aro te di briller ah. mm-hmm. même xale yu ndaw yi léegi tu vois de de de xale yu tuuti tuuti tuuti yoo xam ne ni que ne dañuy def seen i ay single nekk ci inter di am ay millions et des millions de vues. Mm-hmm. te du prince art yoru leen. musuñu mm-hmm. jaar prince art peut-être que ñun bu leen noonu leen gisee noonu sax c'est un rêve peut pour ñoom bés bu leen prince art jëloon peut-être pour pour jàppale leen tuuti ñun on est des artistes on fait de la musique. D'accord. on est des artistes. Mm-hmm. ñun euh, label du rek am xaalis nga créer label. label ci biir xam nga lan la après mën nga créer tu fais beau studio tu mets tout ce que mais c'est de la propriété intellectuelle xam-xam mm-hmm. moo yore musique defar ko ay composition mm-hmm. arrangement musique bu neex bu toj nit yi bëgg ko loolu la mm-hmm. ku nekk na def sa liggéey ñafe géej gi yaatu na ku nekk mën nga yore sa joow di joow te doolaal sa moroom na affaire yi jax nit yi génn artistes yi génn producteurs yi nga xam ne ne que ne dañu fayoon ñu jugaat produire artistes yi. Mhm. fii artistes mën nga leen produire ba ba jeex ñun li ñu yore ci ay artistes mënuñu leen sax produire. mais tata wàllum production problème la parce que da dégg artistes yu bëri naan ñoom ils ont ce c'est dû à quoi. c'est il faut de l'argent. Mhm. déjà il faut de l'argent. il faut am cher. Mhm. au delà de ça mën nga am loolu yëpp mais doo am xam-xamu defar musique. doo am xam-xamu defar musique dafa am yoon. lii ngay def muy ñuux ñuuxi ci xolu nit yi nga xam ne buñ ko déggee duñu mën a tax duñu mën a taxaw loolu xam-xam moo ko yàlla moo koy def si nit mm-hmm. ma dak Youssou Ndour laa mais aw ma ko management laa mën Ibou Ndour a ko mën mm-hmm. man awma xam-xam mu defar musique médiocrité musicale bi bëri na Sénégal oui, il y en a beaucoup. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger les choses Qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger les choses mm -hmm. Il faut demander aux médias de ne pas mettre n'importe quoi. <laughs> D'accord. D'accord. Alors, peut-être la dernière question mooy quelle a, quelle été la votre plus belle expérience sànq wax nga ñu li la gën a metti mais am na tam dans votre vie lu la gën a neex loo dundoo. sama doom. Mhm. le parce que man je me suis mariée je suis restée longtemps am mënuma am doom. Mhm. ah oui ah un seul garçon yàlla na maa ngi koy ñaan gudd gi fan ak Euh, loolu la. xam nga imaginez bu nga toog nga sëy nekk xale di sëy nga toog ay nga toog lu yàgg di wut dara amoo ko. yaa ngi ko am ban âge. maa ngi ko am quoi maa ngi ko am peut être bi ma amee trente trente deux ans peut être. je sais pas je ne sais pas je me rappelle pas pas faire le truc donc pour man euh, c' était l'une des loolu mooy li gën a mm-hmm. parce que c'est venu comme ça man demoon naa je si suis rappelé am na euh, mosoon naa rencontré kenn sax mu naan ma que ni yow mun doo mos sa am doom ay affaire yooyu. Mhm. oui un médecin m'a dit ça. à part vous décarcasser au boulot qu'est-ce que vous aimez faire d'autre comme loisir. comme loisir seetaan télé. <laughs> seulement. seetaan télé seetaan des euh, mais la chose bi nga xam ne ni que ni moom ma gën a neex bi nga xam ne moo gën a kii. Mhm. mooy per wérde bi ak julli mhm. loolu daal mooy sama première affaire ba pare mhm. après leneen doog ñëw d'accord tata maa ngi lay sant di la gërëm maa ngi lay sant tu as posé des questions très tàggoo ñi nga xamante ne ñoo la doon teewlu ci laa rajo du bonheur depuis 16 heures maa ngi leen di gërëm di leen sant ah ci ci ci déglu bi mhm. déjà ñi ma déglu Euh, di ci remercier di la remercier remercier sa collègue yi nga mm-hmm. àndal ah question yi vraiment j'ai beaucoup aimé ay question yu yu parce que des fois nga def ay interview yenn question yi ngay bëgg ñu poser la ko dund ko poser c'est des mm-hmm. questions vraiment très très très et euh, d'habitude moi je fuis beaucoup les les interviews mhm. les interviews parce que bëgguma euh, di wax sama wax ñu koy jël di ko ëlbati parce que mhm. xam nga dafay am période mooy li ma la doon wax sànq boo xam ne ni que ni su wax baree boo waxee sa wax du feeñ dafay dafay gën a yàq mhm. du defar donc euh, nous on a éduqué été éduqué comme ça dans on travaille on on on parle pas on travaille parce que c'est à partir du résultat du travail qu'on te juge on te juge pas parce que ay la mu fi wax non non moi j'aimerais pas qu'on juge la mu fi wax non mm-hmm. j'aimerais qu'on me juge par rapport à mon travail mm-hmm. et euh, donc loolu tax bi ma sama frère mbañi ko ne ma vraiment bëggoon naa kii man si mbañi temps yi xam nga bu ma waxee gars yi dañuy ne dangay kenn wala ay mu ne ma non du loolu sama kii ay affaire journaliste di que ne amul problème mm-hmm. ñëw leen quand même je salue le professionnalisme je salue vraiment la pertinence des questions qui m'ont été posées et je pense que <laughs> te été à la hauteur. Mhm. donc ma leen di gërëm di leen sant di leen mhm. ñaanal tawféex. Mhm. di leen ñaan seen mission bi ngeen nekk yàlla suñu borom gën ko ful. ah gën a kii affaire yi parce que ki ngeen <clears throat> ci ki ngeen nekk ci ci gannaawam kooku ku am jom la. ah il a vraiment dem na ba nga xam ne tey jii Sénégal boo ciy wax euh, ñi fi am solo yi il faut nga tudd ko. te loolu liggéey moo ko waral. waaw donc euh, voilà donc euh, royukaay la. royukaay la ci jeunesse bi et que voilà c' bien façon kii yi ngeen di def peut être que man peut être que j' inspire quelqu'un mm-hmm. mën naa am que ne mën naa inspiré benn nit mm-hmm. boo xam ne ne que ne euh, sama sama sama nekkin mm-hmm. wala ni ma mel neex na ko ba mun ci jàng am ci yiw mën na am c'est la la vie est ainsi faite donc peut être d' ay d' autres et looloo tax may rafetlu façon façon le fait de mettre en en exergue des des gens. Mhm. xam ne ni que ni c'est des gens de valeur. Mhm. yoo xam ne ñu mënu wax ni ci dégg leen for dara. Mhm. loolu je ne pas naka li ma wax am na solo mais yaakaar naa ne de yàquma bagage bi. Eh, yàqoo ko moom alors tata ñu ngi lay remercier bu baax jàppaleen ni naan ni nga koy ni ngeen koy gisee ci télé bi en face noonu la gën a yànjee macha allah. <laughs> ah ñu ngi ko fekk kon ci fi nga xamante ni mooy bureau macha allah mu toog tout en noir jàllabe bi c'est très joli ñun ñi ñu amoon te waxtaan ak yow parce que euh, vraiment am na loo xamante ni jëlee nañ ko ci ñu ngiy gërëm bu baax suñu caméraman du Ndiaye di remercier tamit les confrères du quotidien ba sama red chef bu ñaawul bi ak Anita bi nga xamante ni mooy gérer la page people désormais amis auditeurs dañuy dem ba beneen yoon ñu toffi ak beneen star merci de l'écoute et très bon week